waaw gis ngeen ko vous avez vu ñu ngi fii tey Liberté 6 extension fii ci côté marché bi marché zinc bi gis nga ko gars yi safara yiñ taal voilà taal nañ ay pono gars yi daal dañoo tas ñii ngi Sacré Cœur ñii ngi Liberté 6 extension voilà waa gis ngeen ko nii gars yi ñu ngi pare euh, voie bi yëpp lañ occupé ñu ngi tal nii waaw. waaw gis ngeen ko ay jigéen ñooy dajale ay taabal ni di ko taal waaw. yow yaa tax ndaw ñi ndaw ñi bëggatuñu tey bisub tey Macky doo fanaan yow ci réew mi tey doo fanaan fale ñun soni sonn nañu ñun mënatuñu tàyyi nañu gat sa dama ne tey bu dara des Dakar ak population bépp Macky tey dinañ jàmmaarloog yow askanu Sénégal gépp dinañ jàmmaarloog yow tey. lay waxaat rek. waa gis ngeen ko mu ngi noonu. gis ngeen ko noonu dafa mel ni gis ngeen ko yéen ko bokk gisandoor gaa yi ngi sànni lacrymogène gendarme yi fii nag dafa mel ni fii la fii la fii la nit ñi gën a bare voilà. du jamais vu kii jàkkaarloo Thierno Alassane Sall mooy wax noonu. waxuñu waxuñu. le doñu ni ne ñu ñëw manifester pacifiquement. suñu constitution moo ñu may. parce que gars dañ ko jalgati. lu ñu bëgg def c' coup d' constitutionnel. l' de la constitution ne kenn mënul réviser. pour laal mandat wu président de la république kenn mënu ko yokk lu bu député yi bëgg a def du dëgg du yoon amuñu droit yokk mandat wu Macky Sall c'est impossible mais les conséquences c'est qu'il viole la constitution lui-même a dit wax na recalé yi ba mu dajeeg ñoom nee na leen munu ma changé munu ma ci affaire bi dara élection yi le 25 février loolu mooy dëgg. suba da bien sûr. campagne yi da ci campagne la ñu nekk nii. ci campagne la ñu nekk. Macky Sall moomu réew mi. il a la force il croit avoir la force de l'ordre avec lui. mais le peuple est plus fort que lui. et on doit quand même on doit arrêter. ça fait cinq ans qu'il fait ce qu'il veut dans ce pays-là. ils ont détourné la. l'argent de ce pays en masse ils faut sekil qu'ils veulent rapport Covid baa ngi fi taxee rapport Covid baa ngi fi gars yi lekk xaalis réew mi waxuñu ci xale yi tëj nañu université bi depuis des six mois xale yi jànguñu waxuñu ci waxuñu ci gars yi dee ci gaal gi waxuñu ci suñu géej gi ñuy wax ay rapport commission d'enquête parlementaire ci conseil constitutionnel conseil constitutionnel nag bu ñu dañu ñàkk fayda ba ñu jàppee leen ay dañu wuruj te dañu corrompu ñu nangu lii jàll ñoom ñu xam ne bu dee dañu nangu révision constitutionnelle bi ne amul problème mooy lu ñu leen doon taxal am na nañu waxante dëgg réew mi kenn du seetaan ñu koy fooyee c'est pas normal par rapport au PDS quelque par rapport au PDS moi je n'ai rien à dire au PDS le PDS est restera ce qu'il a été un parti qui a torpillé la constitution pendant qu'il était au pouvoir un parti ki a généralisé la corruption dans ce pays waaw gis ngeen ko réaction na Alassane Sall waaw ma ne ko Thierno Alassane Sall gis ngeen ko moo doon réagir noonu voilà nee na na peuple bi jël ay responsabilité am na peuple bi jël ay responsabilité ndax nee na président Macky Sall moomu réew mi dégg naa yéen ko bokk dégg mel ni dafa mel ni fii moom moo gën a tàng ci ci ci ci ci ci fi mu nekk nii fi ñu toll mooy Liberté 6 extension zone bi mu ñu nekk moom moo nekk zone bi gën a buuj fii la fii la affaire yi gën a buujoo moom parce que fii la nit ñi gën a bare waaw. waaw Thierno Alassane gis ngeen ko drapeau bu vert bu Sénégal noonu moo ko noonu téye waaw. li ñu Macky di teg nii ñu dind ko parce que ñun ñu Macky Sall depuis 2012 ba tey Macky mi ngi teg ay coono di ñuy teg ay métti réew dara doxul instant bi dictature lay installé ci réew mi li mu bëgg def nii xam na ne tëg ko ci yoon xam na ko leer na ko nañu bu demee ci élection yi day perte mu bëgg ñu jaay doole bëgg a sonal nit ñi Macky Sall bëgguñu ñu askanu Sénégal dañoo bëgg population bi ñëpp génn réew mi laa dañ politiciens yi moomuñu ko dañoo bëgg ñëpp génn ñu xoolaat ñu defaraat suñu réew mi réew mi ñun ñoo ko mën a defar papay Macky Sall moomu ko yaayu Macky Sall moomu ko réew mi ñun ñoo ko moom parce que li koy doxal ci ñun ñii la jeunesse bi nañ génn ngir yàlla nañ génn te yàlla tax nañ génn ñu defaraat ci réew mi. wasalaamaaleykum. je suis le responsable national. on appelle les jeunes à venir nous rejoindre sur sur le terrain parce que il s'agit de question pour Sénégal la question de vie la ou de mort duñu seetaan Macky Sall muy tripatouiller suñu constitution duñ ko seetaan élection day am wala moom moo abal ñu depuis hier le. le Sénégal est ingouvernable amatuñu président na leer ñëpp nañu woo jeunes yi nañ ñëw parce que li xeex nii pour réew mi la li xeex pour réew mi la on les appelle ñu ngi woo suñu papa yi suñu yaay yi suñu li li ñuy daj dafa métti 12 ans yi Macky Sall def 12 ans de répression la 12 ans yoo xam ne ñaata ndaw a ci dee 12 ans yoo xamante ni jaay doole bi tëj rey yoo xamante ni teguñu ko fenn dund gi seer lépp seer ñun sénégalais yi ñu ne nañ muñ nañ xaar ba février ñu wat ñu wat carte moom mu ne def ñuy tere loolu loolu suñu droit la duñ ko ko bàyyee. incha allah merci merci beaucoup. le responsable national des jeunes du parti de Thierno Alassane Sall. Je aujourd'hui venu avec le président Thierno Alassane Sall, accompagné de tous les jeunes. Nous lançons à tous les jeunes du Sénégal de sortir et défendre la Constitution. C'est aujourd'hui un, un décisif

baaxul de fee day kale. fee day kale de non nañ ko lu ñu am jal dinañ dem jusqu'au bout lépp lu mu laaj dinañu ko def ñun mënuñu nangu. Macky Sall dépp bi mu toogee bi mu jëlee réew mi 2012 ak léegi obstacle yu fi jaar yëpp amul benn boo xamante ni taxaw nañu assemblée nationale ne dinañ yëkkati commission d'enquête enquête parlementaire pour xeex li ni mel. mosu fi am dossier ArcelorMittal fii la jaar amul commission d'enquête parlementaire barki de mondial gestion Covid 19 fii la jaar Africa Franck Timis ak lépp lu scandale loo xam ne jaar na fi moo xam côté financière wala côté côté domaine fi euh, éducation ak lu mu mën a doon lépp amul dara loo xamante ni sénégalais yi nañ ko ci kanamu sénégalais yi jooy nañ ko ci kanam Macky saal ba mu jël ci ay matuwaay ci war mosul am tey xam na ne amul candidat bu baax bu mën a gagné opposition sénégalaise xam ne ni dem élection moo tee les patriotes jël réew mi mu ne day reporté élection yi loolu lañ dul nangu lépp lu mu laa nag dinañ ko def dinañ démarrer. merci beaucoup. ndax li ñu fi gis leader yi ci ëpp ci télé yi la ñuy nekk ak rajo yi di wax mais du ñu wàcc mukk fekk si population bi ci li nga xamante ne moom la ñu bëgg. lii moo tax président Ousmane Sonko sénégale yi jox ko bopp bëgg ko ndax lépp lu muy woote moom moo ci jiitu tey li ñu gis fii mooy sénégalais yi ñoo génn di dénoncer li nga xamante ne ñëpp xam nañ ne du dëgg du yoon ndax mënuñu dem ba élection yi war a nekk. tey ci guddi wala tey jii ñu ñu ñu génne ay décret di wax ne euh, aj nañu élection yi ci loo xamante ne loi waxu ko dara waxu ko. ndax lan xam nañu ne président Bassirou Diomaye Faye bu demee élection balaa di élection yi jeex ñoom depuis ñu nekk ci parrainage bi ñoom ñu ngi def seen ay séments pour xam ne élection yi du am loolu mooy dëgg ñoom li ñu li li xew nii yëpp programmé woon nañ ko mais nag lii nekkatul. xeexu opposition wala xeexu kenn xeexu xeexu population bi la. population bi ci boppam ñoom seen destin moo war a nekk ci seen loxo ñu war a xam ne réew mi lu ñu masul nangul maki Sall lu ñu masul nangu président Abdoulaye Wade mas ñu ko nangal président Abdou Diouf président Senghor duñ ko nangul président maki Sall loolu mooy dëgg. ndax mënuñu nangu ñu ni dañuy reporter élection yoo xamante ne six mois lañ koy yóbbu te ku ne xam na ne mois de août day tolloog ah taw bi ñëw bu taw bi ñëwetee ñu ni nawet kenn mënu ci def campagne électorale kenn mënu ci def élection ñu yë ñu reporté ko loolu nag lañ dul nangu élection yi dañ koy def ci date biñ ko wax muy 25 février 2024. loolu mooy dëgg sénégale yi nag lii nekkul loo xamante ne dañ ko war a xeex fii Dakar wala duñ ko xeex Pikine wala duñ ko xeex Parcelles fépp lañ ko war a xeex xeex bi suñu droit la sunu devoir la ndax ñun ñooy sénégalais yi. te majeure partie bi ànduñu ci li président Macky Sall bëgg a def même ñi mu àndal ci Benno Bokk Yaakaar ci APR ànduñu ci ndax ñu ngi gis ay démission kon dafa jot sëkk sénégale yi xam ne am na loo xamante ne ñoo ko moom muy sunu réew lu ñu ci bëggul warul am waruñu toog seetaan loo xamante ne à chaque fois ñu andil ñu lu bees te gis nañu ne PDS dafa ànd ak ki nga ñi nga xamante ne ñoom ñooy Benno Bokk Yaakaar ngir xeex élection yi du am te xeex biñ koy xeex teguñu ko fenn ndax li nga xamante ne la wax comme quoi que ni dañoo am ñu ñu corrompre ba léegi génnewuñu benn firnde te loi firnde la soxla ndax yu mel nii jaaroon na fi Sénégalais yi dañoo dañoo gaaw a fàtte maa ngi leen di fàttali. vidéo Adji Sarr président Ousmane Sonko jaaroon na fi ëmb jaaroon na fi ñu tegoon ko ci sunu nopp yi ak sunu bët yi ba ñu jàpp ne am na te ba tey ji kenn gisu ko. kon buñ ñu ñëwatee waxatuñu dañoo koromp ay ay magistrat te indiwuñu benn firnde ñun loolu ñuy wax gëmuñu ko bëggoon am fu ñu jaar. pour mën a reporter élection yi te yoon moom firnde la soxla da ngay indi teg ci taabal ji waaye yaakaar naa yoon du ci dox. ana lan ngay xaar si député yi war waaw gis ngeen ko gayan bi di dem gars yi dañ ko dem gis nga loxo bi dañ koo jam dañ koo jam xaw ma ko dóor noonu nag mu ngi nàcc mu ngi noonu moom moo dirigé woon gars yi gis nga ne nee na leen gars yi mu ngi dem di faju ji nee na leen gars yi dem dem leen au front. voilà il est blessé nag ci loxo il est di loxo ba def ko garu noonu voilà.

en ont marre de lui et de son pouvoir et de tous, de, de, de ses alliés. demain, Inch'Allah Rabbi, tout ça prendra fin, Inch'Allah Rabbi. Donc Inch'Allah, Macky va dégager de notre pouvoir parce qu'on on, ne veut plus qu'un criminel, on ne veut plus qu'un dictateur, on ne veut plus qu'un qu qu tyran, qu'un assassin nous dirige. Ça suffit. hier, il a eu à poser un acte bi nga xam ne moom c'est un euh, crime constitutionnel te loolu noonu duñ ko ko may dinañ ko ko toppee pour haute trahison. intellectuel yu daan wax ni yi lañ bëgg tey ñu génn ñu wax. intellectuel yaa wax Macky Sall nañ ko bàyyi pouvoir ak fiy jëlee carte ak fiy jëlee intellectuel nañ wax wax kan lañ fiy jëlee Macky Sall kañ. toog nañ di ko xaar ñu ni le 25 février ay carte ko fiy jëlee carte yi jot na mu ni carte du ko fi jëlee léegi lan lañ bëgg kilifa diini aussi ñu ngi leen di ñaan léegi li leer na nañ Macky Sall bëggu fee jógee lii dafa leer bëggu fee jógee ñu bëgg ñu wax ñu la ñuy def ba Macky Sall jóge fi bu dul jàmmaarloog kii loolu la bëgg bëggul leneen amul leneen lu mu bëgg Ousmane Sonko wax na ko Sidi Lamine Niass wax na ko Cheikh Omar Diagne képp ku am vision éclairée ci réew mi Serigne Moustapha Sy ñëpp wax nañ ni kii nii bëggu fee jógee ñëpp loo gi nag leer na léegi sénégalais yi nag lii ñoo koy fajal seen bopp mbéjum kanam borom a koy fajal boppam du leneen. ñu ngi jégalu. waaw ñoo ko bokk gisandoor gis ngeen gars yi fépp lañ baare gars ñu ngi biir Sacré Cœur voilà fépp lañu fépp lañu fépp lañu baare ndax gars yi dañ leen tas fee depuis euh, ci cimetière Saint-Lazare yi gendarmerie occupé na ko ñëpp fépp euh, commencé neen sànni lacrymogène yi voilà gis ngeen ko jeunes yi ñu ngi commencé woon di rassembler mais gars yi mayuñ leen ko voilà saa loo ñu mën a wax ci lii ah lii doy waar rek mat nab tool vraiment réew mi bi ñu ko koy jox 2012 nii lañ doon génnee ànd ak moom di xeex. amoon ci moom yaakaar mu war ñu. te kii yàlla ak suñu àq daal kalaame nañ ko yàlla nag xaw ma kañ la ñuy yeewu ñu ne Macky Sall nekkatul ci réew mi mais nag nii la nii la mën a demee parce que euh, les Sénégalais dafa bari ñu foo fi ñu toll nii ñi lonk ci système bi ñëpp bëgguñu affaire bi jeex ñoo ko jàppale ci lii mais nag danañ ci def lu ñu mën balu lu ñu yàlla jox ñu jël loolu laa moon ci lu may wax. mais mais déclaration bi mu def démb gisoo woon ne peut-être euh, lim reporté élection yi jaaduwul woon. grand man dès le début ku may waxal dama naan la na tëgg élection rek parce que man xam naa ne kii tëgg élection parce que troisième mandat bi mu pousse mënu ko wanaasu mënu ko wanaasu li la bëgg te kii comme bu ñu ko fi bàyyee dana lijjanti ko boolewaat ci ci course bi te boobaa day bokk. à vie la bëgg la bëgg toog ci Sénégal te loolu mënul ne kii dañ ko démasqué fi ñu toll nii Sénégalais yëpp xam kii moom mooy kan day ci Sénégalais lay aju. waaw ñooy tënk seen bopp wala ñu tekki seen bopp rek loolu amoon ci li may wax troisième mandat bi. professeur Daouda Ndiaye. waaw euh, dañ koo menacé. Mhm. xotti ay yéreem. Mhm. def ko lu nekk. ñu def bouclier ci moom daan ne suñu leader du dem ñun nañu dee. Mhm. loolu moom moo ñu indi tey mais nag gis nañ ci moom ne moom mooy seul leader bi nga xamante ne bi ñu convoqué 15 heures moom rek a fa nekkoon keneen nekku fa moom rek a ñëwoon à 15 heures ah, mu taxaw Pikine la jógee. daan ne gendarme da ngeen may rey mais du ma dem parce que Sénégal bu ñu ko doon séddoo wàllam day ñëw mais lan mooy ndayu ñun ñu jàpp suñu leader di ko malmené xotti ay yéreem ndax bëggum Sénégalam bu fekkee loolu toor la kon dinañ ko rey ndax bëggum Sénégalam dee moo koy tàqaleeg ñoom te ñun aussi ku bëgg sa réew nii nga war a taxawee taxaw ci lii parce que lii mën la jàll incha allah te du jàll ah waaw du jàll incha allah rabbi. moi je suis le mandataire national de professeur Daouda Ndiaye. non non non dañ ko euh, je dois que ce qui se passe actuellement est inadmissible. Et c'est le moment de lancer un appel à tous les leaders pour que demain, que tout le monde se mobilise et qu'on aille à l'Assemblée nationale. cette mascarade ne doit pas passer et ne passera pas. On invite à tout le monde de venir demain matin à l'Assemblée nationale pour qu'on bloque cette, euh, je ne sais même plus quoi, par rapport à ce qui se passe actuellement dans ce pays. Nous pensons quand même que nous devons arrêter cela parce qu'on va aller aux élections par force. Donc c'est ça qu'il faut dire et on le euh, par élection par force. élection par force. waa gis ngeen ko ça pue ici mu nga ko gis nga ko noyyi sa mënatuñ ko ndax lacrymogène yi. vraiment c'est dur suñu bët yaa ngi jooy suñu bakkan yëpp bon c'est bourré. personne ne choisira notre candidat. Mhm. ni notre notre futur président personne peut ne peut nous choisir le futur président. incha allah nous allons nous battre pour libérer ce pays là qui est en otage qui est pris en otage nag par un clan politique et partisan. waaw dégg ngeen ko gars yëpp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi wax seen mécontentement ci report des élections yi. ak rassemblement bi ñu buggoon def gars yi annulé ko vraiment euh, opposition bi fii mer nañ ba futtu li ñu déploré rek mooy quinze heures bi ñu joxante rendez-vous ne nañ professeur Daouda Ndiaye rek moo fi nekk yeneen leader yëpp gars yi dañu ruux mën nañu wax ne ñëwuñ wala peut-être dañ leen bloqué mais daal lii moo fi xaw fii ci Sacré-Cœur ak fii ci côté Cité Keur Gorgui yëpp tëj leen xale yi nekk ci biir ci biir kaso bi nañ leen di génne détenu politique yëpp nañ leen génne defuñu dara waxuñu dara ku ànd ak sonk ñu jàppale tëj ku jàpp usmaan Sonko ku ànd ak Ousmane ñu jàppale tëj lool moo dul dëgg moo dul yoon teguñu ko fenn nag teguñu ko fenn ñun nag dinañu dem jusqu'au bout lum ñu jaral rek ñu xamante ne loolu la ñu jaral. reporter dañu annuler carrément muy wax noonu yëpp ñun am ñu ci benn njàngat ndax moom moom moom li ko neex lay def moom lu ko neex lay def fi mu toll nii dafa yaakaar moom moom moom réew mi di buum ak di mi te loolu noonu duñ ko nangu. kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi dul jóge moo fiy jóge par la force nag moo fiy jóge ndax moom moomu réew mi waaw dañ ko voté woon. pour moom mu gañe toog ci réew mi bu jeexalee mu dem keneen moromam daal di ñëw léegi nag mu bëgg toog ci réew mi à vie loolu duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg lu mu ko jaral benn rek ñun jaral nañu ko fukk waaw ba fu mu yem neex ba géej gi fer di des walaatu ndox ñun ñoo ngi ci ginnaaw Sonko waaw kon ba tey kenn waxatu ko mm-hmm. dañoo bëgg changement Macky nañu abal dañoo dee te ubbi suñu détenu politique yëpp bàyyi suñu président Ousmane Sonko mu doxal dañuy jàpp sa mbokk jàppuñu sama benn mbokk mais ñu jàpp sama mbokk nañu bàyyi suñu président Ousmane Sonko parce que dañ ko ragal moo tax ñu denc ko nëbb ko jant ji mais teewul ñu ngi ko tëj te teewul mu ngi doxal mhm. fa mu ne nañ ko bàyyi xoolal ñun pare ñu joxe suñu bakkan ba ñu ñu ci dara réew mi changement day am par la force dañuy sëgg bëre neex bëre naqari bëre neex bëre naqari bëre